réew yi jot a toog ci boppu Sénégal la ñuy bàkkoo mooy dëgëral démocratie état de droit waaye itam ak ak yelleefu askan wi mu di lu ñu duppee profession de foi di gën a dëgëral état bi nga xam ni bokk ci ferñeentu état ba tax nañu koy fësal ci bépp discours officiel boo xam ni président de la république yi def nañ ko dalee ko ci Léopold Sédar Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade ba ci Macky Sall ku ci nekk ci ñoom doon la askan wi nii moo fi nekkal seen ak ak yelleef moo ne de ñàkk a sàmmonteeg état de droit ak démocratie bëri na ay jafe-jafe yu mu jural askanu Sénégal mu di ay torture ay tëj kaso yu yàgg waaye itam ay gàllankoor ci bind ak wax lañu xalaat li ko dalee ci génération yu 1968 génération yu 1988 ak yu année 2000. ñaareelu alternance bi nga xam ni jib na ci mars 2012 bokk na ci wax yu waroo yu politiciens yi di faral di amal ba muy feeñ ci ay jëfin yoo xam ni dëppoowul ak démocratie fukki at ak ñaar ginnaaw ñëw régime bile kuréel yi ëmb xeexkatu ak ak yelleef askan wi la ñu seetlu moo di ni Sénégal jaar na ci ay jafe-jafe yu doy waar dara soppeeku bu ñu sukkandikoo ci ñoom. lu toll ci junniy nit ñu ngi ci kaso bi ñoo xam ni jàpp nañ ni ci opposition lañ bokk wala société civile tëjub ay journaliste ak kii leader d'opinion nekk lu ñu yombal fii ci Sénégal mu bëri ñuy faatu ci prison yi te du am benn enquête boo xam ni tëddee na njaaxaanaay marché yi ñuy tere saa su ne dafay nasaxal la ak ak yelleef askan wi ku ne di ragal ñu déglu ay waxam jaaree ko ci ay appel téléphonique wala sax ci réseau sociaux yi ñuy couper internet te duñu fësal lan moo ko waral loolee mooy jëmmal démocratie bu tàggatémbe bi nga xam ne am na fii ci Sénégal te am ci secteur yëpp mu di ci njàng meek njàngale mi wérgu yaram mi wutum xëy meek yu ni mel mu di ak ak yelleef yoo xam ni lu mënul ñàkk la ci askan président de la république bi nga xam ni ñu ngi koy xaar ngoonu ko vingt 25 février atum 2024 am na liggéey bu mu war a def ci wàllum démocratie fii ci réewum Sénégal